salam Senegal, aduna salam alaikum yeen wa diaspora bi yeen ñu di setan ci wéru koor bi di len balu ak di len bal ak ah ma ngi len di wax man Mama Fa kep kuy sama fans nga japp ci projet bi ndax projet buy dem la machallah allah nañu ñoo ngi gis commentaire ñoo ngi gis lepp lu baax ni ngeen ñuy wax ah ñoo ngi bekk ci yeen di len wax nak ngeen japp ci projet bi numéro bi mi ci souf ku ko gis na nga dugal cent franc xeebuñu ko xeebu ñu cent cinquante xeebuñu dara lu waaye am na ko ci dugal jërëjëf. mbokki Sénégal diglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax yi yow mi jigéen wala ngay góor nga feebar feebar bu la jaaxal lool dawal nga seeti seex boo seetee seex mu tàggale la ak moom yow mi góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba dara si dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba munoo si dara yokkum awra kil sutu ko fii fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi ngi produit yu bo xamni bu lako ko boko ci ko say ans day génn say fess génn say pato cornel génn bo solé ba wala robb sa forme nu fang prise de poids seex moo si aay maanaam nga bëgg wañ sa poids yaram karaw guy ruus seex moo si nga amé hémorroïde wala ndoxum siti mo xam nga amé mauvaise haleine manam gemmeñ guy génn xet ngay jigen nga bëgg sa jëkkër jox la bop nop la lol seex moo si aay wala ngay goor nga bëgg sa jabar nop la yow mi nga xamni da nga amé dré panneau demal nga seeti seex nga amé tank tànk yu métti di la sonal lool tension seex moo si ay diabète seex moo si ay nga amee ngelawul seytaane demal nga seeti seex mu tàggale la ak moo xale buy tiit guddi seex moo si ay ngay góor ñu takk la xala boo seetee seex da koy dindi si une minute yow mi nga xam ni dëmb dalaa jàpp seex am na cuuraay boo xam ni bu la ko joxee nga suuroo ko day daal di jëfu ngay jigéen bëgg jëkkër demal nga seeti boo amee sa bëgg def ay finition King Paints agsi ngeen bëggee peinture bu am qualité taamu leen King bu peinturé ba mu rafet mën nga toog diiru benn at raxas say mur bu mel ni yaa ngi koy door a peinturaat ak King Paints am ngeen multitude choix couleur rax ci dolli nag mën nga peinture tey ci ngoon fanaan ci tey ci guddi am na qualité originalité ak pureté boo dee distributeur kenkayri wala entrepreneur laajte leen King Paints ñu koy woowee peinture king bi King Paints nag 100 pour cent d'origine anglaise la King Paints le roi de la peinture. gën leen a sell doon leen ki ngeen doon jaaree ko ci liggéey bu sell bi nga xam ne moom la bio pur daal di def ngir ngeen di rafet fu ngeen toll bés bu jot les crèmes bio pur day dugg ci sa der dindi bépp tâche dindi bépp gàkk-gàkk te du yàq sa dara loolu mooy li ci am solo saabu bi tamit dafay defar sa yaram ñi ngi ko defaree ak noyau d'abricot mu am ay vertu yo xam ne yu pur la jaaree ko ci huile de rosier muscat, sa der gën a lisse gën a am éclat Biopur étiquette ba rek moo changé même formule ba la même efficacité ba la Biopur da ngeen xamanteek moom un produit de Biopharma maman Fane naa la. maa la raw. mbaa yaa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah bu baax ñu ngi fa ñëpp nga fa. macha allah naka sëñ bi. sant yàlla ñu jëkkër suñu chéri. <laughs> mi ngi ñu ngi ci jàmm. naka koor gi. ñu kóor góorgóorlu rek di muñ. wallaay. yàlla nañ ko teewaay déwén déwén. allahumma amiin yépp fekkee. sant yàlla bu baax. naka sama doom ji. mi ngi fi. mi ngi ci jàmm. mi ngi ci jàmm. alhamdulilah man de moom laa ñëwoon seet si. Hmm. xam nga ne bu mu duggee ci kër gi ba tey ma muur ko ma dugg fi ñëwuñu fi waaye dafa di rekk dama ko dénk ñu mat a dénk ndax këram la jóge ñëwaat ci këram mm-hmm. te xale buy sëy danga koy bàyyi muy sëy waroo faa bari ay tànk loolu rek a tax ñëwuñu fi waaye tey nag damaa toog yaayam yónni ma ndax lu baax lim lay defal lingeer ndax nee lepp lu bax ci sa armoire rek lingeer lingeer la ko defal bu dee jasneer bu baax lingeer la bu dee cuub bu baax lingeer la wax sa prophète lingeer la ma ko moko mom kan mo la yoni nga ni kumba kumba dem rek gis na ko marché hmm? Hmm. la ma wax démb ak li nga wax nii day ute na loolu waaye. Hmm. Hmm. ndax kumba moom may ndayam moo la gën a xam ne la ma yaakaaroon ba dugg ci doomam gisuma ko ci. Hmm? doom ji amul cër. nga respecté wul kenn te du wan baat. sëyul sëyluwul. boo demee nga ni Kumba comme moo la yónni dama yaakaaroon ba dugg ci doomam mm. fekkuma ko ci Soko salaamaaleykum. Soko. oui ça va. et comment tu vas. les affaires. oh il est en mer de Mia. ok. voilà soxna woon. ok. nu mu def nag. waaw oh, sant alhamdulilah. Oh. ça va njaboot gi. ça va alhamdulilah. maa am jàmm. ñu ngi jàmm bu baax. alhamdulilah rabbil alamin. Euh, Taakumba man nag euh, li ma fi indi tey donte nag bi tàng na ci koor gi à propos de Mbiya la parce que la fois passée Mbiya ñëwoon na kër ga ba fa ñëwee nag euh, gis naa ko am naa ci moom ay petits sentiments pas grand sentiment mais ay petits sentiments am naa ko ci moom. Il n'y a pas de grande ça mais c'est petit différence. Comment euh, Avec parle avec moi, mais tu m'as déchiré. Tu m'as rejeté, tu m'as déchiré, tu m'as banal complètement. Comment Bien, tu es un parent. Parent, c'est à toi. Comment Avec parle avec toi pour que je l'aime bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Hein? je veux lem bëgg naa ko takk vraiment je enceinte Mbia. Euh, waaye duma ni sax bettu ma waaw bettu ma li ngeen baaxul ndeyam baaxul doom ja ndey ja kun ko wax nga mer sa ndeyam. yaru ay doomam moom sax dafa yaru ba yar ay doomam ka ca kër gaa gën a wol na mi ko ñépp saaf nañ suuf ba mu tàng ñu teg ma ca sëyloowu ko keroog ba mu gàddoon la bal ñëw ca kër gee la ma dégg mu koy wax kooku sëyloowul doomam lu bon rek la ko doon wax wax ko mukk lu baax waaye nak dama du dama xam nga rek do yoy do ko meuna wax. manam dal mom dafa yeb doomam pour mu ñëw tas sama kër. waaw. moo taxit doomam bi mu ñewé xaaj na sama kër juroom ñaari kër ak genn wal kaw def te yàggagu fi. bëgg ma takalé sama dom? waye dina xamné bamay sonu sama dom, mom mi taxul sama dom nak mëna nañu yobbu xelam waye pour nangu ko samay loxo googu doom dayam juddoogul gaw ma nga gaaw ko récupéré <laughs> ndax kooku ndeyam dafa capable hmm. balaa takk gi am hmm. fu ne doon na fa dugg ca ndoxaan ga la jóg sa doom ji toogul ba caag xelam mi dem jaxase na leen de boo gaw ma nga gaaw ko récupéré nag boo paree mën ngaa dem ndax damay waaj génn jërëjëf dama la doon wax rek waa kay jërëjëf waay merci beaucoup nuyul ma waa kër ga kontaan naa jërëjëf nuyul ma sa sëñ bi bu baax a baax soobee yàlla laa ilaaha illallah yow baax na rek merci rek. finalement woo naa ko pour expliquer ko mais daf ma am lu ma tontu lu ma tontu nag mooy ma ñàkk kersa loolu nag moo ma mitti ba tax ma ne naa sol samay dàll ñëw bi sa kër pour expliquer ndegam yow yaay yaayam Mbiya dama ko bëgg. te bëgg naa ko fa suma bëgg goo xam ne mun naa ne am na tàmbalement mais finalement amul fu mu yem euh, ma bëggoon nag am ci kër gi baat ndax waaw ndaxte nit booy dugg ci ci yu mel nii dafay laaj donc nga engage wu à ma ci manière yooyu nag ci laa dikk pour donc waxtaan ak sama njëgënaay. pour hein, maintenant hein dugg ci kër gi ak doole euh, kër gi fii bëgg vraiment lépp li fi di na parce que du ne mais am lu loo xamante ne si nii mën naa ko dégg beneen bi mooy euh, fii par jour. dépense bi dinañ ci waxaan incha allah parce que toogul benn place dinañ ci wax bu sooba yàlla. pas mais parle ça parle pour pour pour pour pour à ma conscience pour le tranquille. non garaawul dinaa ci wax ak yow loolu jërul yàkkamte. dégg naa kër gi sax ñu naan Mia ti ti ti yaara dégg naa ko dégg naa ko.

Oke. Di mana sepun ini telepon murah di Nepares. Oke. Pada ada tanya sekecil lembu kan? Oke. Mentena, il faut vite gitu, ya? Oke, Ok. Eh, hey man, my job. Hey, eh, why sab? Qui eh, jai jai, ah. naan damaa bëgg a takk miyaa dama bëgg a dëkk sañseem bi rek kii mbaa du fa oto du dox rek oto sàppoor jël ko faatu fa yàllaaw ay man seeg boo amulee jëkk dangay ñàkk fayda kii xam nga ne bu ko patron yëgee kii daf maa yeb sax koo gis yii te xam naan ku mel ne Ousmane Kane bu ma ko defloo woon moom damay giris rek dama naan du ko def yàlla rek a mën fii. la bañ a gee metti man daal ci bitig bi laa dem rek ñëw mel ni kuy miir naan chin mel ni kuy gis bi jiw ba jëkk maa sonn. man de bu dee chaque jour di lay continuer léegi ma naan ndox. te dafa mel damaa am estomac man damay géex loo xam ne lekk ma ko. xëdd da war a ba waxuma loolu man euh, kii ñëwoon na fi nu mu tuddati booy bee nekk ñoom Linguère. daam waaw koy daam la mu ngi noonu. kon yow yaa ko jox sama numéro woo ma si yoon bi. yow yëpp nga ma de man dama am jot sa jot yaag daam ba léegi ba ko jox sa numéro ak foo toj daam daal nee dalaan bëgg. bëgg loolu la fi wax si woon ñëw na fii nag toog. teppeeku na wax na lu ne ma ne ko waa baax na ñaata ngeen di dépassoo ma ne ko dinaa la ko wax léegi nag nobanteel ak moom lekk li mu yor coow la jeex kon yow yaay lingeer moo ko jox sama numéro yow da ngaa yëg lingeer te lingeer du sa morom waxal ci lii may wax moo gën nga naan yaay lingeer ko jox sama numéro yow yaay daam dafa wér-wér gu ma koy lekkee yow gis nga daam daam wérul yow yaa gën a wér daam fi tool toll nii. Mm-hmm. daam dara jotu ko lu wokkul dërëm wokku ko dama ne la daam daa ne ca kër gi di liggéey di fayeeku salaire am weer wu dee mu fayeeku ko loolu mu yor di ko fayeeku nag moom ngay yóotu lekk ko ba mu jeex ne ko xoolal jaaral ne dàq ko comme ni ñuy dàqee xale waaw ne ko jàllal ca xaj wala nga ne ko jàllal ci sa néegu yaay waaw kay. lamb daal métti na soo lambee façon nit ku nekk di nga ko gis waaye nag daam nag moom. table looloo baax lamb gi nga lamb daam daal la ci ubbi tuuti soqi la comme dangaa lamb nii baal daam soqi la tuuti ma ni la régleel te nungu loolu boo ci soqi koo seet gisaat keneen sax léeg-léeg di nga gisaat keneen loo ibbeekoo loolu ngay continuer yow imagine mu ubbeekoo daam ay daam dong laay am te daam sax dafa mel ni mooy genre nit ñooñu nga xam ni wéruñu ñi leen di yóbbu seen kër mbokk yeeg yooyu noonu ñu fay toog man ñooñu rek la may jox yow mi mbono bul dam man gis na dam gis na dam mu melni ku dugg ci nët bi man gis na dam de mais dama ne la lekkal khalisu dam pa dam ngay waxantel limu yor CFA bi mu yor mom ngay lek amal xel te ubbi sa beuti bay sa nelo yi nga nekke ish comme da da bon rek di ñew ni da lay doxaan lekkal limu yor daa melni ni idée la de mais man li sans problème est-ce que dam yor na dara ni na la dam day fayeku ay sec sec bi na fexe ba bu mu ci bind daam bu mu ci bind miyaa na ko def porteur jox la ko nga fayeeku ko ah. loolu daa mel ni xel la sax de est duma ko woo yoroon naa numéro su ma paree naa ko woo. gën leen a sell doon leen ki ngeen doon jaaree ko ci liggéey bu sell bi nga xam ne moom la bio pur di def ngir ngeen di rafet fu ngeen tollu bés bu jot les crèmes bio pur day dugg ci sa der dindi bépp tache dindi bépp gàkk-gàkk te du yàq sa der lolou moy li ci am solo sabu bi tamit fay defar sa yaram ñi ko ak noyau d'abricot mu am ay vertu yo xamni yu pur la jaré ko ci huile de rosier muscade ce der gën a lisse am éclat biopur étiquette ba rek mo changé même formule ba même efficacité ba la pur, da ngeen ak mom un produit de biopharma salaamaaleykum Senegal, salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum yeen wa diaspora bi yeen ñu di setan ci wéru koor bi di len balu ak di len bal ak ah ngi len di wax man Mama Fa képp kuy sama fans nga japp ci projet bi ndax projet buy dem la machallah allah nañu ñoo gis commentaire ñoo gis lepp lu baax ni ngeen ñuy wax ah ñoo ngi bég ci yeen di len wax nak ngeen japp ci projet bi numéro bi mi ci souf ku ko gis na nga dugal cent franc xeebuñu ko bu ñu cent cinquante xeebuñu dara lu waay am na ko ci dugal jërëjëf. ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax yi yow miy jigéen wala ngay góor nga feebar feebar bu la jaaxal lool dawal nga seeti seex boo seetee seex mu tàggale la ak moom yow miy góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba mënoo dara si nekk dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba mënoo si dara yokkum awra kil sutu ko fii fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi liggéey ak produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko si diwee say ans day génn say fes génn say pato cornel génn boo solee baa wala robb sa forme nu fang prise de pois seex moo si aay maanaam nga bëgg a wàññi sa pois yaram karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti moo xam nga amee mauvaise haleine maanaam gémmeñ guy génn xet set ngay jigéen nga bëgg sa jëkkër jox la bopp nopp la lool seex moo si ay wala ngay góor nga bëgg sa jabar nopp la yow mi nga xam ni dangaa amee dere pano demal nga seeti seex nga amee tànk yu miti di la sonal lool tension seex moo si ay jabet seex moo si ay nga amee ngelawul seytaane demal nga seeti seex mu tàggale la ak moo xale buy tiit guddi seex moo ci aay ngay góor ñu takk la xala boo seetee seex da koy dind si une minute yow mi nga xam ni dëmb dalaa jàpp seex am na cuuraay boo xam ni bu la ko joxee nga suuroo ko day daal di jëfu ngay jigéen bëgg jëkkër demal demal nga seeti seex yow mi nga xam ni da nga amee prostate boo seetee seex jooni jooni da koy dindi bëñ buy metti seex da lay tàggaleeg moom nga yore asthme wala enzyme bu metti lool wala estomac cet seex da koy dindi nga bëgg a ubbeeku wala nga bëgg a bayre ku la gis sopp la boo seetee seex di tàgg biir buy miti wala bopp buy miti boo seetee seex mu tàggale la ak moom seex a ngi noonu dab seen bànneex ak bëgg ngeen wér rek mooy li koy teel jokkoo ak moom si numéro téléphone yi muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 seex a ngi noonu képp ku si jokkoo ak mom mo xam nga bëgg kula la jaay produit bi wala nga bëgg faju fajum cosaan boo seetee seex mu tàggala laak lepp luy sa jangoro seex a ngi noonu dab yi tey askan wi rek moy bo amé sa cœur, bëgg def ay finition King Paints agsi bu ngeen bëggee peinture bu am qualité taamu leen King Paints boo peinturé ba mu rafet mën nga toog diiru benn at raxas mur mel ne yaa ngi koy a ak King Paints am multitude choix couleur rax ci dolli nag mën nga peinture tey ci ngoon fanaan ci tey ci am qualité originalité ak pureté boo distributeur kenkayri wala entrepreneur laajte leen King Paints ñu koy woowee peinture king bi King Paints 100 d'origine anglaise King Paints le roi de la peinture.